la bokk na ci li ñuy jàng mooy sunu borom di ñu jàngal di ñu fàttali yonent boobu tudd Muusa bi ko yàlla yónnee ci Firawn méthode bu rafet bu lewet bu Muusa utiliser ci kaw Firawna pour xamal ko doo yàlla ndax waajakat Muusa fekk na ko mu réew ba dof ni niti jamono tey di tuddee seeni kilifa ay yàlla wala di tuddee seeni bopp yàlla wala seeni ñoñ di leen tuddee ay yàlla noonu la Muusa fekke kàccoor boobu tudd Firawna naan maay yàlla waaye comme borom doole la borom doole yépp ki ci gën a bon gën cee yées mooy borom doole bu soxor borom doole bu soxoree du am yërmande comme Muusa xam na loolu jàng na loolu ci Firawna Moussa daal di utiliser méthode aw yoon aw doxalin bi uslub latif yoon wu lewet wu sanctifié bëgg naa wax Firawna du dëgg doo yàlla waaye ab président wala ab buur wala ab kilifa soo ko fekkee ci biir njabootam ne ko du dëgg li ngay wax li ma doon wax sànq bu dee ku soxor dalay gaañ moo tax Moussa alayhi salaam daa di ut aw doxalin aw layin woo xam ne wax na waa ji doo yàlla te jaarul ci baat bi looloo gën a baax looloo gën a rafet chaque jour ci kuy wooteel yàlla li nga bëgg a wax da nga koy wax ba pare te doo jaar ci tur bi te ki ngay waxal dana xam ne kii kat li may woote wala li may wax moom mi dajji na ko fekk na Firawna naan may yàlla yemul ci wax nit ñi may yàlla waaye dana leen maa alimtu lakum min ilahin ghayri ku ma fi dégg di sax nga ni yàlla am na dama lay rey bal sax weesu na foofu ba ne leen ana rabbukumul aala maa yàlla ju kawe ji ay yàllaa ngi fi waaye nag maay ki kawe ki moo tax bi Muusa ñëwee ne ko yàllaa ma yónni mu ne ko yàlla moomu kan la mu ne ko mooy rabbul alamin mooy borom bindee fi Firawna ci mbindeef yi la bokk wala bokk ci ci mbindeef yi la bokk ci beneen ay da ko ne rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma ki ma yónni mooy borom asamaan mooy borom suuf ak li ci diggante asamaan ak suuf fan la Firawna nekk dafa nekk kaw asamaan dafa nekk ci kaw suuf tontu bi mooy waaw su fa rëccoon mu ne ko diggante asamaan ak suuf kon munu cee génn kon xamal ne ko doo yàlla ki ma yónni moo moom asamaan moo moom suuf ak li nekk diggante asamaan ak suuf kon xamal ne ko doo yàlla ndax rabb mooy ki moom koo fi dégg ñu naan ab yàlla la wala nangam dañ koo sosal waaye xam nga ne yàlla du dee yàlla su moomee li mu moom du génn ci loxoom da koy moom ba faw yow mii sa oto bi sa kër gi sa jabar ji ay waxtu rek nga ko moom léegi nga dee bàyyi ko fi ñu jaay oto bi keneen di ko dawal kon moomoo ko woon soxna si léegi nga dee keneen takk ko kon moomoo ko woon sa alal ji léegi ñu séddale ko ñeneen amma yàlla nag mooy borom asamaan kan ngeen ngir nga gis mu ne moom moomum asamaan di ngeen juddoo ba léegi kan ngeen dégg muy woote ne maa moom suuf di nga dégg diw mooy borom jaam ñi waaye loolu dañ ko ko tuumaal rek ndax ki moom jaam yi du bàyyi jaam yi dee kon fu muy bàyyi jaamam yi da nga fi indi jaam yi ba pare dee bàyyi leen fi kon borom jaam yi mooy yàlla loolu njuumte la moo tax Muusa ba mu ñëwee ci Firawun dafa ut aw doxalin woo xam ne dina ko wax doo yàlla te Firawna du mer te Firawna du ko gaañ Firawna du ko tëj du ko rey moo tax mu doxalee méthode boobu fàttali moom Muusa mu fàttali Firawna bi uslubin latif bi annahu laysa rabban ko saa waay dëgg dëgg dëgg neexul ba neexul waaye doo yàlla kan moo yàlla mu ne bal hunaaka rabbul alamin ki moom mbindee fii ki moom àdduna sàkk asamaan ak suuf ak li ci diggante bi koo koy yàlla yàlla moom boo ko bëggee xam mooy rabbu Muusa moom mooma moom man Muusa moo moom sama frère bi ànd ak man ci woote bi waaye war naa su ajmain moom moom nit ñëpp ñetteel bi ñuy jëlee ci darsu tey yàlla daf ñuy saxalal taqrir mabda'u sidqi ladar rusuli alayhimu salaam yàlla daf ñuy won ne yonent yi ñu dëggu lañ man yàlla maa leen yónni ab yonent du fen dafa bokk ci màndargay ab yonent koo xam ne yàllaa ko yónni daa bokk ci ay mbiram ñeent ñeent yuy wane ne kii ab yonent la yàllaa ko yónni ba ca jiitu mooy as-sidqu yonent day dëggu dëggu lan mooy contraire am fen yonent du fen amul yonent bu yàlla yónni mu nekk fenkat bal yonent yëpp dañoo dëggu moo tax première mandarga bu ñuy xamee ab yonent mooy asidq dëggu bu ñu waxee benn bi rek da ngay dégg safaan bi ñaareel bi mooy at-tabliig mooy jottali yenn saa nga dégg ñu ne yonent bi def ma nëbbal nangam ak nangam loolu du dëgg yonent du nëbb da ngay dégg fii ñenn naan ñun li ñu yor jagle la ci biir jagle yonent bi moonu ko nëbbal loolu weddi alquran la ndax yàlla moo ne yonent bi yaa ayyuha rasul balligh bima unzila ilayka fa in lam tafal fa ma ballaghta e yow yonent jottali li ma la yónni soo ko deful kon message bi la yàlla jox mottali woo ko moo tax dafa araam ci yonent yàlla yónni ko muy nëbb wala mu naan dafa am lu muy denc beneen bi mooy yonent bi bu dencee li muy tekki mooy diina ji matut ndax dañ koo yónni na leeral lépp kon bu fekkee am na lu mu denc diina ji matul beneen bi bu fekkee dafa am lu mu jagleel ay nit comme maanduwul te yonent bokk na ci mandarga yi dafa war a maandu al amaana dafa war a am maandu tey yonent bu ko yàlla yónnee ci ñëpp mu jël ay nit rek kenn ne ko yow maa la nëbbal lii maa la ko jagleel maa la ko jox kon loolu du maandu tey moo tax keroog ca Arafat ci aj gu mujj naaj ba tàng ba ñu mbaaral yonent bi benn sër sër boo xam ne ñeenti bant lañ ci takk ñeenti saxaaba téye ko ndax yonent bi tàngaay bi mën a wàññeeku ker gi mu am ker gu mu taxaw keroog bokk na ci yonent bu la mu wax mooy alahal ballaghtu ndax jotal naa saxaaba yi ne naam mu ne allahumma fashhad yow yàlla seedeel yemu ci mu ne leen fal yuballighi shaahidu minkumul ghaib yéen ñi fekke tey jox leen mbir mi ñu ñëwagul moo tax diine lislaam kenn du ko jël yemale ko ci sa bopp danga koy jël tasaare ko fal yuballigh na jottali ashaahidu minkumul ghaib yéen ñi fi fekk tey yor mbir mi jox leen ko ñeneen ñi keroog bi yonent bi waxee loolu sahaaba yi am na ci ñoo xam ne delluwaatuñu seen kër noonu la ñu waree seeni fas tasaaroo ci kaw suuf tasaare ji diine am na ci ñoom ñoo xam ne war nañu seeni fas ba ci océan Atlantique bi ñu waat ci yàlla ne bu ñu xamoon ginnaaw géej gi ay kërañ fi danañ xuus géej gi yóbbu diine ji am na ci koo xam ne ba muy këj këram soxnaam dafa ëmboon mu dem nekk fay at mu ñëwaat jaar ci jàkka ji julli ñaari ràkka daal di fekk ab xale bu góor bu taxaw di waaraate mu taxaw déglu ko ba pare ba waxtaan wi jeex ñépp génn jàkka ji di ñibbi xale bu góor bi jiitu mu topp ci ginnaawam xale bi dox ba ci benn buntu kër taxaw fëgg waa ji yegsi ci buntu kër gi taxaw ne waa ji ne xale bi du yaa doon waaraate ci jàkka ji mu ne ko waaw mu ne ko ku baax ku mel ne yow nooy waaraatee ba pare ngay def safaan bi xale bi ne ko ban safaan laa def mu ne ko kër gi nga taxaw loo fi def mu ne ko man fii laa dëkk fii mooy sunu kër soxna si dégg leen ñuy wax yaayu xale bu góor bi mu génn ndeysaan mu gis góor gi taxaw mu daal di koy song ñoom ñaar ñu daal di roofoo soxna si daal di gestu xale bu góor bi na ko kii mooy sa pap góor gi daal di kotofu xale bi teg ko ci dënn bi daa di xool yaay ji ne ko comme yàlla dimbali na la am nga ku ma fi wuutu maa ngi delluwaat liggéeyal sama borom duggaatul ci biir kër gi loolu moo tax ngeen gis ne saxaaba yi ñoo tasaare diine ci kaw suuf partout dans le monde li ëpp ci dëkk yi da ngay yegg si ñu ne la lii bàmmeelu saxaaba la te ngeen gis ne loolu ñu naan amakinul muqaddasa barab yu sell yi barab yi nga xam ne boo fi jullee ñaari ràkk moo gën junni jàkka feneen moo gën junni ràkka feneen barab boo xam ne boo ko laalee yàlla jéggal la sa bakkaar barab boo xam ne boo ko dawee yàlla baal la ndox moo xam ne boo ko naanee boo feebaree yàlla wéral la xoolal loolu yëpp ni mu mel ak ni mu sellee ak ni mu bëree saxaaba yi dañ faa bàyyi loolu dañ faa bàyyi xajaratul aswad boo ko laalee yàlla jéggal la sa bakkaar wala dañ faa bàyyi kaaba gi bàyyi fa maqaama ibrahim bàyyi fa safa ak marwa bàyyi fa maa u zamzam bàyyi fa arafat bàyyi fa bàyyi fa bàyyi fa musdalifa bàyyi fa mina tasaaroo ci kaw suuf di woot nit ñi di leen dugal ci lislaam lu tax ndax yonent bi moo leen ne fal yuballighi shaahidu minkum al-ghaib yéen ñi fekk tey joxi leen mbir mi ñi ñëwagul abubakar saddiq keroog ba mu duggee ci diine ji dafa ne yonent bi lan moo ma war ar rasul sallallahu alayhi wa sallam ne yonent lan moo abubakar ne yonent lan moo ma war yonent ne ko li ma war moo la war abubakar daal di génn premier jour muy ni Ousmane ibnu Affan deuxième jour muy ni Arqam ibnu Abil Arqam troisième jour muy ni Ousmane ibnu Mazoun quatrième jour muy ni Bilal ibnu Rabah jàng ngeen al mubashirina bil janna ñi yonentu xool ne leen diw mu ne mu ne yow di nga dugg àjjana ñaata lañ ah ashara al mubashirina bil janna ashara juróom ñaar ñi abubakar moo leen dugal ci lislaam juróom ñaar ñi set yi abubakar moo leen dugal ñun bi nekkee ci daaw ba léegi ñaata di leen indi ci sunna ñun laa wax ma ne bi nekkee ci yoon wi ba léegi ñaata nit lañ dugal ci diina yàlla bi aka moo tax liggéeyunu loolu moo woon ne liggéeyunu su fekkoon ne par exemple kenn ku nekk tey indi nga ñaar nit indi nga ñett ah kon fan la liggéey bi di toll waaye ku nekk rek yaa ngi tal sa bopp ak di di di xas ñeneen ñi di leen ñaawal naan yow sa bopp àjjana nga jëm ñee safara lañ jëm saxaaba yi mbokk yi dañoo waatoon ci yàlla ne ñoom diine ji du ñu tëdd di nelaw lu dul mu tasaaroo moo tax ñu tasaaroo boo demee Inde fekk fa saxaaba buñ suul boo demee Syrie fekk fa kuñ suul boo demee Jordanie fekk fa bàmmeelu saxaaba boo demee Palestine fekk fa bàmmeelu saxaaba foo dugg partout ci biir Sénégal danga fa fekk bàmmeelu saxaaba foo nekk foo dem loolu lu leen di won mooy taqrir mabda'u sidqi la dar rusuli alayhim salaam mooy da ngeen di jàng ne yonent yi dañoo dëgg woon mboolem yonent yi cent vingt quatre mille yonent amu ci kuy fen amu ci ku xeluwul alfataana bokk ci seen màndarga ñu am xel amu ci ku nëbb alkitmaan kenn du nëbb ab yonent ñoom ñëpp la leen yàlla yónni woon ñoom ñëpp jottali nañ ko ba mu mat sëkk kenn ci ñoom nëbbul dara kon ku gëm ne kenn ku nekk ci nekk ci ab tarixa wala nekk ci ab mbooloo wala nekk ci ab groupe nga yëg ne yéen yonent bi da leen a nëbbal wax ngeen lu amut yonent nëbbalul kenn dara xanaa jàngu leen alquran ne walaw taqawwala alayna ba'da al aqawil la axasna minhu bil yamin summa la qata'na minhu al watin yàlla nee na yonent bi li ma la jox soo ci soppi woon dara nga changé ci dara changé benn virgule danaa la ne zëcc poñe la ak sama main droite waaye dinaa dagg sa put kan ma wax loolu yàlla kan la ko wax muhammad moo tax amul lu mu nëbb ñeenteel bu ñu jàng mooy zuhuru aayatayni li muusa yonte yàlla muusa allahu subhanahu wa taala kattale ne woon na ko jox ko li gën a rëy ci ay màndarga kéemtaan mooy aw yat ak loxo donte ne kéemtaan yi ko yàlla joxoon ëppoon na lii waaye lu ëpp solo ci kéemtaane mooy aw yat wu ko yàlla joxoon mu nekkoon ci moom kéemtaan su ko yan su ko sànnee mu nekk jaan suy sàmm moom lay yor ndax boo ko yàlla ne wa ma tilka bi yaminika ya muusa qaala hiya asaaya atawakka'u biha aaya ba muy ko ne waliya fiha maaribun waxra am naa yàlla ah yeneen yu ma ci defa ndax yenn saa yi ma toog tayal a jóg dóor dóor yat bi ci garab yi xob yi wadd xar yi lekk mais attention encore de ku ma dab ponkal mu ma dab ci àll bi yat yat waa ngi nii de loolu la loolu tekki aaya bi loolu lay tekki waliya fiha am naa ci yeneen ay mbir yu ma denc ay ngeleju yoo xam ne attention de yat bi ah yatu Moussa ndeysaan gis ngeen yat bi lépp la waaye yàlla de joxoon na ko encore ci kéemtaan yooyu al yadu mooy loxo boo xam ne bu ko dugalee ci poosam génne ko su la nee nii dootoo xool ndax lumière dootoo gisati mbokk jullit yi ci tënk bu gaaw ñeenti mbir yi ma wax moom la ñuy jële ci juróom benn aaya yi nga xam ne tey moom la ñu nar a def sunu dars ñuy ñaan sunu boroom jalla jalaaluhu mu dëgëral sunu làmmiñ ba juróom benn aaya yi sunu làmmiñ du ko wàcc ci wax ne yàlla nee na yonent nee na ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu juróom benn aaya yi insha allah summa ba'athna min ba'di muusa min ba'dihim Musa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق
Allahu akbar.
قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Allah yabarik fiik jazakumullah xeyr yal na yàlla fayal yiw sunu borom ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom yàlla tabaraka wa taala munuy nettali mu nenu summa topp baasna man yàlla yónni naa min baadihim seen ginnaaw ginnaaw ñan ginnaaw yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla yónni woon muy nuux di xuud di saalax di luut di shoaibu ginnaaw juróomi yonent yi ku dem keneen ñëw Muusa moom la waxtoom jot yàlla daal di koy yónni mu ne lii mooy juróom benneelu qissa boo xam ne saaru al araaf ëmb na ko mooy histoire yonent yàlla Muusa moom moo leen juróom benneel yàlla yónni na ko mu jëm ca firawna ak mbooloom yàlla dina ko nettali di ko nettali yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu tax lan moo tax yàlla di nettali muhammad histoire yeneen yonent yi lan la mu ne pour dalal xelam pour du décourager pour mu am confiance mu am yaqin mu am kóolute mu xam ne am moom ab yonent la yàllaa ko yónni mu mun a taxaw waar aw xeetam fàttali leen comme yeneen yonent yi ndax su fekkee ne da yàlla da ko nettali ne ko nuux maa ko yónni woon weddi nañ ko ma yónni huut ñu weddi ko ma yónni saalax ñu weddi ko ma yónni luut ñu weddi ko ma yónni suaybu ñu weddi ko ma yónni Moussa ñu weddi ko kon yow Muhammad bu ñu la weddee est-ce que dalay métti du la métti loolu moo tax yàlla di nettali yonent yàlla Muhammad histoire yeneen yonent yi pour mu am xel mu dal mu am kóolute mu bañ a découragé mana borom bi ne summa topp man yàlla baas naa yónni naa min baadihim seen ginnaaw ñoom mooy juróom ñee ñu waxoon kan laa yónni Muusa ibnu Imran min zurriyati Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alayhi salaam yàlla yónni na yonent bu tudd Muusa Muusa di doomu Imran bokk ci njabootu Yusuf Yusuf di doomu Yaqub Yaqub di doomu Ishaq Ishaq di doomu Ibrahim Ibrahim di xaritu yàlla kon gis nga Ibrahima ni mu nekkee abul ambiya bàyyi yonent yi néew na yonent bu génnul ci Ibrahim néew na Ibrahima Moussa moomu yàllaa ko yónni ginnaaw yonent yii fan la ko yàlla yónni ila firawna yàllaa ko yónni ci buur bu tudd firawn borom bee ko jox message ne ko demal ca firawna firawna lu muy tekki mooy képp ku mës a gouverner Égypte firawna lañ lay tuddee comme son excellence son éminence wala waaw yooyu bal sax dafa amoon ci jamono ay nit ñoo xam ne bu ñu gouverner dëkk seen tur dañ koy changer comme ku mus a gouverner Égypte Firawna ngay tudd ku gouverner woon Perse Kisra ngay tudd ca jamono yu yàgg ya mu nekk gouverner woon Faris Kaysar ngay tudd ku gouverner woon Rome Namrud ngay tudd ku gouverner woon Éthiopie nooy tudd Najashi loolu moo amoon comme tey ku gouverner Sénégal looy tudd président de la République noonu ngay tudd président waaye kenn ku nekk ci ñoom dafa amoon turam mais boo jiitee turbaay wadd léegi nu ñu lay woote wooyee mooy monsieur le président rek monsieur le président borom bi nee na maa yónni Moussa bi aayatina ma jox ko samay kéemtaan samay aaya aaya yooyu ñaata la tis a aayat neuf kéemtaan la yàlla joxoon Moussa neuf saa yu benn bi ñëwee banu Israil weddi ba sonn ñu ne ko boo ñaanee yàlla lii dem danañ nangu mu ñaan yàlla loolu dem ñu lànk yàlla bokk na ci kéemtaan yi mu ko njëkk a jox mooy al asa yad wi yad wi bokk na ci kéemtaan yi bokk na ci aliyadu loxo bi bokk na ci sinuun ay at yoo xamante ne atu bekkoor la lépp lu ñu def dafa wow koŋ aba amatuñu lu ñu lekk bokk na ci at damu deret amatuñu ndox mu ñu naan lépp deret la demoon nañ sax ci deret jooju ba diggante xam ngeen ñaari xeet la woon mooy copte yi ak waa banu Israil kenn ci banu Israël day guux ndox moom bu naanee day nekk ndox waaye bu ñëwee bu koo def ci gémmiñu benn copt mu nekk deret buñ ubbee léegi léegi bu ñu rootee léegi ci dex gi buñ ko tegee mu nekk deret ba amatuñu lu ñu naan ndax lépp nekk deret ak dem bokk na ci ab tuufaan mooy mbënn lépp mbënn yàqu tout tool yeeg kër yeeg tout lépp lu ñu am bokk na ci al ajjaraad soccantal lépp soccantal yi dëkke ko ba dugg ci biir néegi boo tëddee ci lal bi sax ñëw war sa kaw tool yeeg tout ñu lekk ko boo tegee cin sax ñu ñëw dugg ci cin bi ba fees booy lekk ñu plongé ci ba fees wal xumala ak ay teeñ xam ngeen teeñ ah xamoo teeñ waaye yow xale nga de teeñ teeñ ah teeñ mooy nekk ci kawaru jigéen ñi ah loolu mooy teeñ yàlla yónni ko ci ñoom ñoom ñoom ñu teeñ foo toog teeñ yi dañ lay mat ba seen yaram yi góom dëkk bi yëpp teeñ la bokk na ci wa dafa di ay mbott allahu akbar mbott yi di plongé rek boo ngaa ngee sax mbott ne feew ci biir gémmiñ gi boo tëddee ñu war sa kaw booy togg ñu plongé ci cin bi ba fees safara bi du leen rey boo booyelee ñu plongé ci dëkk bi yëpp mbott la ba kenn mënatul bougé wa tam si am waal firawna bokk na ci encore firawna lu mu moomoon yàlla effacé ko mu jeex tàkk xoolal neuf aaya waaye yii benn bu ci nekk bu ñëwee dañuy ñëw toroxlu ci Moussa ci Moussa dimbali ñu rek ñun koy leer nañu ne yàllaa la yónni waaye waaye su Moussa ñaanee bu loolu demee ñu ne ko waaye waaye dimbali ñu njabarkat bu mag nga gëmuñu la dara beneen ñëw noonu la nekkee ak ñoom ba mu mat neuf sunu borom nag ne ko neuf yi kéemtaan yi man yàlla man maa la ko jox demal ila firawna ci waa jooju tudd firawna wa mala yi ak ay nitam mooy li ñu waxoon keroog mala loolu ñu naan gang ashrafu qawmihi wa ayaanihim min ru'sa wa kubara 19 la ñuy nekk jëm suuf wala ñoo xam ne buñ duggee ci saal bu saal bi feesee ñoom la loolu lu ma loolu la ñuy wax mala ndekke kon Moussa yàlla ka yónni ci firawna waaye du firawna kese ak mbooloo mi ko dar allahu akbar waaye lan mooy kéemtaan bi lu tax yàlla yónni Moussa ci firawna moomu ak ay mbooloom min rijaalaat mulkihi wa dawlatihi ci nit ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom gouvernement bi nguur gi ak état bi ndeke Moussa du ci firaaw na kese la ñëw mais yàlla daka yónni ci régime bi ak état bi ci nguur gi ak dëkk bi peuple bi ci loolu la ko yàlla yónni yàlla jox ko neuf kéemtaan yooyu mu nekk pour lan lu tax yàlla jox ko loolu li takuna hujja pour mu nekk lay wu leer ala sidqi risalatihi buy wane ne yàllaa ko yónni dëgg la ndax kat dëgg-dëgg nit mënul jékki-jékki rek dëkk bi yëpp mu def ko ay mbott mënul nekk nit mënoo jékki-jékki rek ndox bi dëkk bi yëpp nga soppi ko deret loolu yàlla rek ko mën nit mënul jékki-jékki rek dëkk bi yëpp nga def ko ay teeñ nit mënul jékki-jékki rek su sànnee yat wi mu yor mu nekk jaan wala loxo bi bu ko xoolee mu am lumière loolu dëgg-dëgg kéemtaanu yàlla la ak màggaayam buy wane ne moom mii kii kat dëgg-dëgg yàllaa ko yónni loolu sunu borom subhanahu wa taala daf koy defal yonent yi instant bu nekk mooy yonent yi buñ ñëwee yàlla da leen di jox ay kéemtaan pour nit ñi xam ne ñii dëgg dëgg dëgg dëgg yàllaa leen yónni Moussa nag moo ci ëppale ndax moom moom moo ci am neuf ñeneen ñëpp ay benn la ñuy am ñii ñaar yonent yàlla muhammad moom benn la ko ci yàlla jox benn buy wane ne dëgg la yàllaa ko yónni waaye boobu moo ci ëpp doole ci ñëpp lu ñu am ndax yetu Muusa tey mun na mun na mun na mun na ñëwaat mun na ñëwaat loxo bi mun na ñëwaat munul ñëwaat naaqatu saalix ndax mun na ñëwaat munul ñëwaat waaye xool alquran bi du fi jóge kañ la woon septième siècle chaque jour bu ñu koy wax da nga yaakaar ne lii de léegi léegi la wàcc day ànd ak jamono bi yëpp ba nun ñuy fekki sunu boroom yàlla di taxañ asamaan ak suuf alxuraan dafiy nekk rek nekk benn xujja lay wu leer wu ne weng ci kaw nit ñi laa yaatihi albaatil min bayni yadayhi wala min xalfi caaxaan du ko jóge ndeyjoor du ko jóge càmmoñ du ko jóge fenn caaxaan wu ñëw mu këpp la ci suuf wane ne waxu yàlla la kàddu yàlla la muy kéemtaan bi gën a rëy bi yàlla jox seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye sunu borom subhanahu wa taala nee na bi mu yónnee Moussa ci firawna ak gàngooram googu wër ko yàlla mu ne fa zalamu biha dañoo tooñ ci aaya yooyu dañoo tooñ seen bopp zalamu anfusahum tooñ nañu kan lañu tooñ seen bopp nan lañu tooñee seen bopp mooy bit takzib bil ayat dañoo weddi aaya yi Moussa daa indi aaya yi ba pare ñu ne suut tut tut tut tut neexul ba neexul mais kii vrai vrai vrai vrai njabarkat la waaye dana dagan nga firee ko an yakuna zalamu bi sababiha gayrihim tooñ nañ ñeneen ci aaya yi ñan lañu tooñ ñi nga xam ne dañ leen ne ku ko fi gëm dee gis nga yii muy def nii dara ku ko fi gëm rek dee tooñ nañ ñooñu parce que tey ñoom ñoo baare ñooñu ba dugguñu moo tax mun nga ko firee noonu tamit fa zalamu biha tooñ nañ seen bopp ci wedd gi ñu weddi aaya yi waaye fa zalamu biha tooñ nañ ñeneen ndax tere nañ yoon wi ñeneen gëm firaaw na nee na ku topp Moussa rek ma rey ko ku ko gëm rek dee allahu akbar manauhum min al iman is haddaduhum tere nañ leen gëm kéemtaan yooyu ndax lan tëkku nañu leen bil qatl ne ku ko gëm ñu rey ko mu ne wa jaiz an yudammina zulmu huna maana al kufr ay kafaru biha wa huwa saxiix al maana mu ne dana dagan dana jaadu ñu wax ne ëmm na ak tooñ ndax maanaa weddi yàlla ak tooñ la nee na rek lii sax mooy li wér kon fa zalamu biha tooñ nañ seen bopp tooñaale ñeneen ndax weddi nañ aaya yi yàlla yoon indi muy juróom ñeenti aaya walam ya'tarifu biha gëmuñu ko taxaw fële weddi yàlla fa kafaru biha wa bi zalika zalamu anfusahum looloo tax ñu tooñ seen bopp bi sababi kufrihim biha ndax sabab gi ñu weddi yàlla weddi kéemtaan yooyu ne Moussa du tus wax dafoo fi dara lii nga def ñun mën nañ ko yemuñ ci loolu waaye wastamarru ala kufrihim dañoo continuer ci seen kéeféer yemuñ ci sax dañu ne fii ku fi gëm Moussa dee mooy li Firaaw na waxoon xamaluma leen kenn ku yàlla ku dul man ku ma dégg fi nga naan kii dafa am yàlla di nga dee yaag moom xata ahlakahum llahu bi igraqihim noonu la ñu nekkee firawna ak gàngooram noonu la ñu nekkee ba keroog yàlla indi ndoxam daal leen di labal mbokki jullit yi la tegu ci aaya bi mooy sunu borom diñ ko wax ñun ñii pour ñu dégg ko mooy fanzur xoolal yow moomu tiim téere bi yow ma mu gàddu téere bi teg ko ci sa ñaari tànk teg ci sa baaraam fanzur xoolal yow mii di déglu kayfa naka kaana la mujje aqibatul mufsidin yàqkat yi fan la ñu mujjee seen fin fan la ñoom ñi doon yàq di baare yoonu yàlla di weddi kéemtaanu yàlla yi di weddi yonent yàlla yi ñoom fan la ñu mujje mooy yàlla alak leen loo ciy dégg yow mii tamit toog lànk ne da ngay lànkal yàlla fi yàlla jaar ak ñee dong lay jaar ak yow al imam sayid hawa rahimahullah day wax ne bu ngeen jàngee alquran bàyyi leen xel aaya yi fu ñuy jeexee suñu aaya bi fan la jeexee mooy fanzur kayfa kaana aqibatul mufsidin xoolal bu baax defal ay jàngat xelul yeewul déggal dégg kayfa kaana naka la mujje aqibatu zalimi mufsidin ñi doon yàq seen mujj fan la mooy yàlla alak leen ñoom ñëpp yàlla alak nguur gi alak ministre yi alak député yi alak sénateur yi alak tout le monde nan la leen yàlla alage da leen yóbbu ba géej lawal leen ñoom ñëpp ñu dee kenn ci ñoom génnul kenn doo nga génn muy firawna ñeneen ñëpp jën yi lekk nañ leen jën yi danoo lekk ba néew yi tëmb requin yi dañoo lekk ba suur lépp lu nekk ci géej keroog dafa lekk ba doyal ndax dañoo bëri armée bi yëpp armée bi yëpp a lab armée bi tout la yàlla alak ak ña ca àndoon su fekkoon ne moom mooy yàlla su fekkoon ne moom mooy borom doole su fekkoon ne mooy borom kàttan su fekkoon mooy borom nguur gu dul jeex kon keroog du dee moo tax tiitaru ay yii nii amul benn importance ay diw borom doole laak wala moo yor nguur geeg wala nangam ak nangam koo fi dégg ñu naan dafa am nguur déglu ko juróomi fan. ku nekkoon nguur nguur Sénégal Senghor anamu nee na wàcc na Senghor ba mu demee ko ko remplacé woon wàcc na wala wàccut ba mu demee ku ko remplacé wàcc na wala wàccut ba mu demee ku ko remplacé dana wàcc ci nii wala ci naa luy ci nii mooy ñu gañe ko mu jógee fi ci naa wala mu dee yàgg yàgg da nga fiy jóge munoo fee toog éternellement yàlla nee na defaluma nit muy dund du dee jamais walaw ista alfa aamin wa alfayni baadahu fala budda yowman tadxulul qabr soo dundoon junni at ñu wisaat la yeneen junni at yàgg-yàgg bu ma tàmbali woon fii léegi ku nekk ma wax ko ñaata nga bëgg ba ma yegg si fii ba ma yegg ci sama bopp ku ku wax ku wax di doublé yow ñaata nga bëgg mu ne man bëgg naa dund téeméeri at après téeméeri at ah yow ñaata mu ne ñaar téeméeri at après ñaar téeméeri at day ñëw boo waxoon junni ñu wisaat la yeneen junni après junni woo bu jeexee dee allahu akbar dee rek bëgg dee bañ dee nangu dee bañ dee wér dee feebar dee am dee ñàkk dee mënul sikk mënul ñàkk dee rek foog ñu dee kenn doog moo dul dee kenn kenn mooy kan ku judduwul alaaji bu saaxo xam ngeen noonu mu doon defee gàmmu xam nga moom dafa saf xorom day def gàmmu gi ba gàmmu gi tàng rek mu ne am naa aaya boo xam ne ku ko jàng doo dee gaa yi yuuxu "Ah!" tey de di nga ko wax mu ne bala ma koy wax table bi fees xaalis ñu lal benn morso gaa yi tëmbal tëmbal tëmbal ba affaire bi na gaaj mu ne jël leen bigéey fooy yi gaa yi jël mu ne bañ a juddu ñu ne ah mu ne bañ a juddu ñu ne ah mu ne ku juddu dee ku repp bañ ne juddu na bisa ngi ñëw ñu ne bàmmeelam a ngi nii wala jaanataak da ngaa bañ a dee bul juddu booy reppee ba juddu ba teg sa tànk ci àddina bii ne nii say bët xool ne nii sa ñaari nopp dégg bisa ngi ñëw ñu ne ko doo o leli omuni qabri makko nani allahumma ighfir lahu warhamhu yow allah yurmo yaafooma bisa ngi ñëw ñu ne sa bàmmeel a ngi nii fii nga tëdd yal na la yàlla yërëm jéggal la mu ngoog sunu borom subhanahu wa taala mu ne fanzur xoolal kan la yàlla di xooloo nun ñi xool leen bu baax kayfa kaana naka la mujje aqibatul mufsidin ñi doon yàq lu yàq sama diine ji ah li ma santaane ñu bañ ko def di yàq suuf si te yàlla waxoon na wala tufsidu fil ard baada islaahiha bu leen yàq suuf ginnaaw bu ko yàlla defaree waaye yàlla nee na ñi nga xam ne yàq mooy seen métier comme ay kaña borom bi nee na xoolal ñooñu fan la ñu mujjee xoolal bu baax dawaaman damaaran wa xilaakan yàlla da leen a alak bombardé leen wa hiya aqibatu kullu mufsidin fil ard lii mooy mujjantal mooy résultat mooy fin képp koo xam ne yàqkat suuf nga léeg-léeg nga ne bu leen yàq suuf nga defe ne yàq suuf mooy jël mbalit di ko këpp ci suuf si wala gas foos di ko def ci suuf déedéet loolu du yàq suuf de loolu tilimal ko la yàq suuf mooy li am tey nekk góor jigéen day yàq suuf njaaloo day yàq suuf lekk riba day yàq suuf góor ñi def yaramu neen di check down jigéen ñi ne dum njaaloo bi takar naase sàngara si ne buy musique bi loolu mooy yàq suuf làmb yi loolu mooy yàq suuf ndax lan lay yàqee suuf day yàq ñiy dund ci kaw suuf bu ñu yàqee ñooñu ñooñu yàq suuf si suuf yàqu kon looloo yàq suuf si yàq suuf du di tuur mbalit yàq suuf du déedéet yàq suuf mooy def loo xam ne day tax asamaan dootul taw ndax meru yàlla def loo xam ne gàncax gi dootul sax def loo xam ne day indi meral maral ak bekkoor loolu mooy yàq suuf te tey li ëpp ci ñun loolu la nekk njaaloo bu dul jeex lekk riba bokk na ci li yàq suuf mbokk yi mooy ashirk bokkaale nga xam ne tey Sénégal ku xëy suba foog nga bokkaale ba pare doog a génn tey gi sax nit ci jàkk muy bokkaale bokkaale gu dul jeex biir ak biti ay gàllaaj yu dul jeex ay ndombaaki weñaki lamaki ay petaawaki xaawaki ñii ci bàmmeel yi di tibb suuf yi ñii di raayi photo ñii takki photo loolu yépp bokkaale la ñii takk ay ndombo ñii takk ay laar ñii takk ay xaaw ñii takk ay lam koo wax mu ne la sama lam bi de lamu sarax la sarax dañ koy joxe mu dem ñi naan lam gi lam bi garab la garab dañ koy naan garab dañ koy naan sarax dañ koy joxe mu dem nooy yore sarax boo xam ne yow yaa ko sarax sa bopp takk ko kon kay saraxe woo jullit du takk lam lam yi nag ñetti façon la am na lamu xaalis am na lam bu ñuul am na lam boo xam ne dañ koo dañ koo jaxas ñett yépp araam ci góor bi ci gën a yées mooy lam bu ñuul bi ndax boobu bois sacré la génnee boobu ci gën a bon jullit du takkalam léeg-léeg nga gis benn kilifa gu takkalam ndeysaan waxoon naa ko ma ne ko jullit benn waay may waxtaan ak moom ma ne ko jullit du takkalam mu ne ma sëñ diw dafa takkalam bu araamoon mu bakko ma ne ko law kaana al ilmu min duni tuqa sharafan la kaana xayru xalqillaa iblis bu doon xam-xam mooy tax ni ragal yàlla kon iblis moo ñu moo ñuy gën a ragal yàlla ñun ñëpp iblis a raw ñëpp tout iblis a leen raw waaye est-ce que ragal na yàlla kon yenn saa yi nga am xam-xam te doo ragal yàlla kenn du xool lu dagan ci diw diw moom lii def koy def rek kon loolu dagan na déedéet yenn saa yi nga gis kilifa goo xam ne day jalgati ñaata kilifa diine lañ gis yuy nuyu jigéen ñaata gis ngeen ko wala gisu leen ko ñaata kilifa diine nga gis ñu naan indi sa loxo xale yi ñëw ñu dóor ñu naan la ah daaraam de nga naan déedéet boo ci jubloo bànneex lañ wax ñaata ñaata ci ñoom ngay gis soo xam ne soxnaam bopp neen lay def ñaata ñaata koo xam ne soxnaam dafa xeesal bu konk cur ñaata kon ñooñu est-ce que ñoom la ñuy xool naan kon dagan na kon baax na déedéet am na benn ki naan kilifa la ci ñoom nee na man li tax samay soxna duñu muuru dama nuyu ji sëriñ bi maag samay soxna kenn muuruwu ci te waxu ci dara bu doon muuraay dëgg la mu ne leen muuru leen comme nag gis na leen muuruwuñu kon muuraay du dëgg gis nga ah kon du dëgg moo tax kenn du leen xoole ñoom ndax loolooy dëgg dëgg dañ koy gis xam ne yàllaa ko wax dëgg la waaye dëgg kenn du ko xool ci ay nit fekkee ne ci man ngeen di xool dëgg saa yu ma jalgatee kon dañ naan loolu dëgg la moo tax ñu ne jara bàyyi xel iza zallal aalimu zallal awaalimu ñu ne borom xam-xam bu tarxiisee borom xam-xam bu tarxiisee ñu ne àdduna bi yëpp lay rey ndax ñëpp lay yóbbu ñu daanu su borom xam-xam jalgatee ñëpp ay jalgati ndax lan dañ naan kilifa gi moo koy def ñun dañ koy def moo tax baaxul mbokk jullit yi bi gën a doy waar ci li yàq suuf mooy ashirk mooy bokkaale ñaareel bi mooy alkufru boo weddi yàlla ñetteel bi mooy almaasi mooy ay bakkaar li ñuy def tey ci kaw suuf lekk riba njaaloo sàcc fen ñett yi day di yàq suuf mu ne lii haza ma dallat alayhi l ayatul ula nee na aaya bu njëkk bi lii la ëmb aaya ba ca tegu borom bi mu ne wa qaala Muusa gis ngeen Muusa yàlla yónni na ko waaye yàlla balaa mu yónni Muusa da kaa préparé da ko préparé nan la ko préparé daka woo ba ci montagne bu tudd tuuri siina mu laaj ko ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa boobu Musa mu ngi jóge dëkk bu tudd Madiyan ànd ak soxnaam ak ay gàttam ak ay jaamam Musa di dox yenn doo dox ba ngoon mu réer mu réer réer bu métti fekk da doon ñibbi Égypte bi mu réere dox na ba dox bi métti soxna si sonn na Moussa daa di seen guddi mu seen benn safara di tàkk ci wetu benn montagne bu tudd Tuuri Siina Moussa mu ne mbooloo mi mu àndaloon ak soxna si imkusu reste leen fii taxaw leen toog leen inni anastu naaran gis naa safara mu ngi fële di tàkk toog leen su ma demee ma fekk fa ki taal safara si ma laaj ko mu won ma yoon bi wala ma daal di fay fekk benn gëletu mat ma jël benn bant ma ñëw fii comme dafa sedd ma taal safara ñu toog jaaru kon Moussa bi muy dem ci safara si ñaari mbir la fa la fa foog bu njëkk bi mooy ajidu ala naari hudan ma fekk fa ku ma tegtal yoon bi ma dem wala aatikum minha bi qabasin ma indi leen fi benn gëlët Moussa bi mu ñëwee ba jege safara si rek ñu daal di koy woo mu dégg benn baat naan ko yaa Moussa inni ana allah Moussa maay yàlla laa ilaha illa ana maa ngi lay yëgal ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci kaw suuf jaamu gi nekk njëriñ ñàkk a jaamu nekk lor illallah ku dul man déglul bu baax fastami li ma yuuxa ilayka déglul bu baax li ma lay wax waaye sax faxla na alayka innaka bilwaadi almuqaddasi tuwa simmil dàll yi sa dàll yi simmi ko ndax yaa ngi ci place bu tedd bu sell allahu akbar Moussa daal di simmi dàll yi parce que dàll yi deru mbaam la woon yàlla di ko defal formation formation boo xam ne yàlla dafa bëgg mu gëm texte yi balaa xelam di ñëw chaque jour ngeen dégg ñu ne mbir mi science nangu na ko tey nit ñi dañoo xër daw ci science lan ngeen xam ci science sans conscience ah ay golo ci biir tool la science sans conscience moo moo dal tey monde bi moo dal adduna bi science la ñuy demee sans conscience jiital ko yàlla nag dafa bëgg a jox Moussa science boo xam ne conscience moo ko moo ko lal conscience moo koy guidé moo tax mu ne ko lan nga yore ci sa loxo ndeyjoor wa ma tilka bi yaminika ya Moussa loo yore mu ne hiya asaaya sama yat la lii de yat la Moussa boobu yat rek la ci xam yat yàlla mu ne ko am na am na lu ci nekk loo xamul mu ne ko lan la mu ne ko sànni ko alqi asaaka mu sànni fa iya fa iza hiya sobaanun mubin mu nekk ngandum ñàngoor yeew yooyu bi mu ko sànnee mu nekk jaan naan nii Moussa reculé fàtte daal lii yàlla mu ne ko laa taxaf bul ragal xusha teeku sanuiduha siratahal ula téye ko dinaa ko delloo nu mu meloon nekk yat foofu Moussa bu fekkoon xel bu fekkoon ne xel lay utiliser dina téye yat bi ah xel jaan juy warax warax ñu ne la téye ko ak sa loxo xam nga xel nanguwul loolu waaye texte la Moussa utiliser moo tax mu ne crasse téye jaan bi yàlla mu ne ko xëccal génn gi mu xëcc mu ne ko xëccal bopp bi mu xëcc mu ne ko nii mu nekk yat taxaw mu ne ko bàyyil boobu boobu moom leer na waaw dugalal sa loxo ci sa poqotaan nga génne ko mu dugal génne mu nekk lumière moom ci boppam bi mu ko nee nii boppam mënatul gis yàlla mu ne ko ñaari kéemtaan a ngi noonu bis ni ki tey def naa la yonent nga dem ci Firawna ne ko yàllaa ma yónni ah ndeysaan Moussa mu ne yàlla utal ma ko ma gunge mës nga gis ku nekk yonent ba pare di proposer yonent yàlla utal ma ko ma gunge ndax firaaw na dafa bandi de dafa saay-saay buur bu bon la il faut ma am man kenn du ma du ma ñeme mu maa dem de yàlla mu ne ko koo nangu mu ne sama rakk Haarun mu nekk ñaari yonent yu bokk ndey ak baay waaw ndeysaan ñoom ñaar kese cundum ak yet bi Moussa ñëw na ba ci dëkk bi déposé na soxna si ak xar yi mu àndaloon ak jaam yi mu daal di jubal pale ba fu mu jëm ca firawna ba mu yegsee lu mu wax wa qaala Moussa Moussa ne yaa firawn inni rasulun min rabbil alamin waaw yow firawna yow buuru Égypte inni man mii di Moussa rasulu ndaw laa ab yonent laa fan laa bàyyee ko mu ne min rabbil alamina ci ki bind addina bi borom humanité rabbil alamin ki moom bindee fii ki moom àddina bi ki sàkk lépp moom lépp kookoo ma yónni gis nga fii la boroom xam-xam yi wax ne Moussa utilisé na uslub boo xam ne xamal na firawna doo yàlla ah inni rasulun man ndaw laa yonent laa fan laa bàyyee ko min rabbil alamina ki moom àddina bi ki moom mbindeefi ki moom lépp te moom moo ne woon moom moom moom mooy yàlla kii ñëw ne ko man ci ki moom loolu laa bàyyee ko kon wax na ko ne wax na ko ne doo yàlla wax na ko ne sàkkoo dara wax na ko ne moomoo dara wax na ko ne bindoo dara ki ko bind moo ma yónni man yemul ci loolu mu ne ko xaqiqun allahu akbar gis nga de yonent bi lu dëggu la ci man xaqiq lu dëggu la ci man mii Muusa jadirun wa xaliq bi an laa aqula ala allah illa alxaq ab yonent bu yàlla yónni rek li war ci yow mooy nga wax ci yàlla loo xam ne dëgg kese la doo doo waxal yàlla lu dul dëgg moo tax mu ne xaqiqun ala an laa aqula ala allah illa alxaq riwaaya bi kan moo koy jànge noonu xaqiqun ala kan la warsh beneen riwaaya bi xafs ñooy jàngee ah warsh ñooy jàngee wasu muy jàng alayya xas warsh mooy jàngee alayya bi muy alayya xafs ñooy jàngee ala gis nga su fekkee warsh la lan la ñuy wax xaqiqun alayya alayya mun na dem foofu lan la firawna Musa wax mooy dafa war ci man xaqiqun alayya su fekkee xaqiqun ala an laa aqula ala allah illa alhaq gis nga xaqiqun lu dëggu la lu yey la ala man mii an laa aqula ma bañ a wax gis nga ala allah ci yàlla illa alhaq lu dul dëgg ñaar yëpp wér na naafi day jànge ne mooy warsh xafs di jànge nii ñaari waay yëpp baax na léegi nag boo ci xamul dara léeg-léeg nga gis imam boo xam ne day jiite di jàng lu mel ni naafila yi daan ne xaqiqun alayya nga naan ko ala mu romb la fa nga pare bëgg a indi problème fekk yow yaa maîtriser wul riwaaya yi xaqiqun mooy waajibun alayya dafa war ci man lan moo war ci man ma yëgal leen ne inni rasulun min rabbil alamin man kat ndaw laa lu bàyyeekoo ci yàlla yàllaa ma yónni waaye war na ci man ala an la aqula dëgg dëgg dëgg ma bañ a wax alallahi ci yàlla illa alxaq lu dul dëgg mbokk jullit yi su fekkee ab yonent bu yàlla yónni moom moo taxaw naan li war ci man te yell mooy ma bañ a fenal yàlla ma wax dëgg ma bañ a wax loo xam ne du dëgg kon keneen ku yàlla yónni nag kon ab kilifa nag est-ce que yàlla warati na laa yónni nga taxaw di wax jaam yàlla yi leneen lu dul li la yàlla wax lu dul li nga fi fekk c'est que lii mooy sunu problème la nga xam ne yonent yi ñeme wuñ ko woon muy dem. li nga xam ne yonent yi ñeme wuñ ko woon tey loolu la sunu kilifa yi ñeme di waxal yàlla lu amut ëllëg àllaaxira mën nañ fa daraak ku ànd ak ñun doo lakk ak suba ñoo leen di rammoog te loolu ñene yonent yi ñeme wuñ ko woon dégg nga Moussa lu mu wax aaya baa ngi nii yéen ñëpp ngeen tiim ci xaqiqun ala an laa aqula ala allah illa alhaq man de dafa war ci man dafa dëggu lu yell la ci man jadir loolu lan la ma bañ a waxal yàlla lu dul dëgg képp ku waxal yàlla lu dul dëgg yonent bi rek soo ko fenalee safara nga jëm waxuma la ak yàlla yonent bi nee na man kazaba alayya falyatabawwa maqaduhu minan naar ku fenal yonent bi rek safara nga jëm ku fenal yàlla nag kon foo jëm su fekkee ku fenal yonent bi lakk léegi bàyyi leen yonent bi nañ jël yàlla ku fenal yàlla ku ne yàlla nee na te waxul yàlla moo ma ne loolu ngay dégg fi Sénégal yàllaa ma ne yàllaa ko ne waaw moom yàllaa ko ne fan la gis yàlla bay wax ak moom fan yàlla dafa wàcc ko asamaan ñëw ci biir këram yonent yàlla Moussa sax musuloon gis yàlla te mu ngi takk grade bu rëy jàngeen ba sonn ñu ne leen Moussa yàlla da doon wax ak moom wax ji neex Moussa ne yàlla dama laa bëgg a gis yàlla mu ne ko munoo maa gis te du Moussa kese de même banu Israël banu Israël wax nañ Moussa wonnu yàlla arina allah jaharatan bañ ko waxee lu leen dal fa axasatuhum saiqa benn xaacu moo leen xaacu ñoom ñëpp ñu dee waaw banu Israël waxuñu woon loolu yàlla Moussa Moussa néew ne leen man damay wax ak yàlla rek ñoom ñu ne ko lan nu'minu laka hatta nara allaha jahratan dun la gëm mukk mukk mukk nag lu dul nga won nu yàlla moomu dun la gëm lan lañ indi lan nu'minu laka dun la gëm mukk Moussa kañ hatta nara allah lu dul ñu gis yàlla jahratan face à face dara en direct mubashara allah Moussa ne leen indi ngeen lu ngand de man mii sax awma ko woon biñ ko waxee rek xaacu dal seen kaw ñoom ñëpp ñu dee Moussa mu ne yàlla ah ñii comme dama leen a indi ba fii nga rey leen su ma ñibbee dëkk ba dañ naan maa leen rey dekkil leen yàlla dekkil leen allahu akbar yàlla dekkil leen ci saa si ñu jóg taxaw c'est terewul xool noonu lañ kàccooree wax nañ wax ji yàlla rey leen Moussa ne yàlla loolu du du du ma arrangé ndax maa ak ñoom dese la man kese ma ñibbi kon dañ may weddi lan la yàlla teg ci aaya bi summa summa ba leen yàlla reyee xaacu bi xaacu seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu yàlla da leen a dekkil bàyyi leen ak ñoom Moussa ñu ñibbi waaye gisuñu yàlla de Moussa moom dégg na yàlla di wax waaye gisu ko Moussa bi mu ne yàlla dama laa bëgg a gis yàlla ne ko mënoo maa gis mu insisté yàlla da koo xooloo benn montagne ne ko montagne bi bu riposté di nga ma gis. borom xam-xam yi nee nañ sunu borom subhanahu wa taala dafa jël ci leeram lu toll ne étincelle xam ngeen étincelle mooy booy booyal furna loolu naan tef tef tef di génn benn la yàlla jël dóor ko ci montagne bi montagne bi explosé nekk pënd ak poussière fa xarra Moussa saiqa Moussa daanu xëm bi mu xëmmil ko lan la wax fa lamma afaaqa yàlla nee na ba Moussa ximmilikoo nii lan la wax ah yow yàlla tuub naa de dootuma ko defati mënuma laa gis waaye léegi nag mbokk yi xool leen Moussa garaat gi mu takk Moussa mënul gis yàlla benn sénégalais boo xam ne daa reere mbaxal bu am yéet ak netetu xeeñ xunnu ba biir bi ne këj daa di yeew ne man gis naa yàlla loolu xel nangu na ko ah wala nga lekk sa baase salté wala sa cërëg mbuum ba sa biir fees nga tëdd nelaw xarang xarang ba sonn jinne yi yenu la yóbbu la ca sën ba bërëng la fa ci mbalit ma ba guddi fajar nga yeewu naan bii gis naa yàlla maag yàlla ñoo nekkandoon demoon naa arsh yunus bi gaa yi ne dañuy dem arsh mu ne arsh amul duus de arsh amul duus te doomu aadama fu mu dem day am duus wala weddi nga ne weddi loolu yéegal avion dafa am duus de demal pale daa am duus wax leen fenn ma xool wax leen wax leen foo amul duus fu nit di dem ars ars amul duus ars parce que du jëmukaayu nit parce que nit nekku fa loolu moo tax amul duus nit a fa nekkut ki fa nekk mooy yàlla arrahmanu ala al arsh so waaye feneen fooy dem demal aéroport yéegal avion bi yéegal bato yéegal métro yéegal oto yéegal yéegal yéegal duggal wàccal fanaanal chaque jour douze ans sawet min njehi arsh o wi arsa ala douze raa goonga kenn demul arsh arsh fan la nekk sax balaa nga fay dem bi nga fay dem lan moo la yóbbu yonent bi bi muy dem ci yàlla dafa am lu ko yóbbu de wala yow bi ngay dem lu la yóbbu kon demoo yonent bi bi muy dem yàlla da ko préparé boole kook ay malaika jibril mikail ñu escorté ko yàlla préparé ko fas boo xam ne dafa gaaw ba bët bi fu mu yem fa la tànk bi di yem bu tudd alburaq fas bi jëmm yaramu fas la yor jëmm mbaam bopp nit am ay laaf daa gaaw ba bët bi fu mu yem fa la tànk bi di yem fan la ko jibril jële ci biir aljanna la fekk fas yëpp di lekk mu ne kuc taxaw jibril ne ko lan la lu tax lekkoo comme sa moroomi fas yi mu ne ko mënumaa lekk lu tax mu ne parce que dafa am ab yonent bu tudd muhammad boo xam ne li yàlla bind moo ci gën te yàlla dakaa yu fas yéene yónni mujjantaluk jamono mu nar a rañaan te man dama yaakaar ne kon danañ tànn keneen ku dul man te man ma su loolu amee dana métti ci man man moom rek laa bëgg mu war ma mu ne ko kon yowal ñëw la ñëwal yow ñëwal ñëwal yow la allahu akbar diggante masjidul makka masjidul haram ak masjidul nawa nawa nabawi moom tëbul tëbul rek dem masjidul aqsa de dafa jëkk a jaar masjidul nabawi fii ñu denc tey yonent bi yonent bi julli fa ñaari rakk yàlla jibril xamal yonent bi ne ko fii ngay rañaane fii mooy sa dëkkuwaay fii fii ngay dund fii ngay dee mu pare ñu départ ñoom ñaar jëm masjidul aqsa mu yegsi ñu jël ngalaab bi daal di koy yeew ci buntu jàkka ji yonent bi daal di jiite imaam yonent yëpp yàlla dëkk leen yonent yàlla muhammad jiite leen ñaari rakk moo tax ñu tudde ko imaamul mursalin sallallahu alayhi wa sallam moom ngeen dégg ñu naan waa ji di way naan taraqa yoneen yéeg na beneen apollo ngay langaan nees tuut jibril dëkk allahu akbar xoolal tuuti asamaan yi da ngeen jàng ci islaam ñu ne asamaan yi ay doxu juróomi téeméeri at la asamaan yi ay façon asamaan la yi bronze la yi përëm yi armignon yi xànjar yi or talaay bi talaay bi rek doxu juróom ñaar fukki junni at balaa ngay pénétrer benn egg eggaat ci beneen dina def juróomi téeméeri at wala juróom ñaar fukki junni at asamaan bu nekk am yonant bu fa nekk noonu la alburaq ak jibril di bënne asamaan yi di dem waaw yonant moom bi muy dem dafa am lu ko yóbbu woon yow bi ngay dem lu la yóbbu ah waa ji mi ne dem na ci yàlla am na koo xam ne nee na dem naa ba 16 bi yonent bi toogoon toog naa ci déglu ngeen ko déglu leen ko dégg ngeen ko yéen ñëpp dégg ngeen ko nee na man dem naa ba 16 bi yonent bi toogoon ñu ne ma naa ci toog waaw d'accord nañ dem nga kay ah moom kon nag yaa ñemee wax loolu dama ragal ne léegi moom nangul nañ ko dem ne léegi dañu bëgg yonent bi moom waxoon na li mu war dem moom bi muy dem lan la war nañ ko wax rek yonent bi moom ñun ñëpp xam na lu mu war xam nañ ki mu àndaloon xam nañ ñi mu àndaloon xam nañ fu mu déparé xam nañ fu mu teeri ji ndeysaan yonent bi dem ba yegg ci yàlla dafa ànd ak jibril ànd ak jibril ànd ak jibril ba jibril mënatul dem jibril taxaw yonent bi xool ko mu ne ko wa ma minna illa lahu maqaamum maalum mënatumaa passé fii ñun ñun ñun ñun malaaka yi dafa am fu ñu yem mënutuma départ mënutuma dem su ma demee rek leeru yàlla daf may lakk yonent yàlla Muhammad ne Jibril nan laay def mu ne ko demal nga yéeg ci essence seri bële mu yóbbu la ci sa borom yonent yàlla Muhammad yéeg allahu akbar foofu noonu indaha sijratul muntaha indaha jannatul mawa is yaxsa si- sidrata لا يغشى ما يخشى ما كذب الفؤاد
زاغ البصر وما طغى allahu akbar ma zaqa al basar yàlla mu ne bët yi jéngul de te yonent bi doful li mu gis yàlla la ah kooku yàlla moo nu ko nettali léegi nag ñun fii ñii dem ci yàlla ñoom kan moo nu ko nettali ñoom lan moo leen yóbbu ay ba bismillah reer ba suur rek fanaane sa xale bu jigéen bu rafet naan sa ataaya yeewu naan dem dem na arsh loolu yomb na de arsh yonti moom dafa dem allahu akbar ba mu nee jàkk jàkkaarloog leeru yàlla lan la ko wax attahiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah ñeen ñi attahiyaatu lillah azakiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah yàlla ne ko assalaamu alayk ayuha nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu malaaka yi fekke woon cortège beeg feet bi daan ne assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin kooko demoon attahiyatu lillah nuyoo yu teel yu teey yàllaa ko moom azakiyaatu lillah nu yooyu sell yàllaa ko moom atayibaatu yu teey asalawaatu julli yàllaa ko moom yàlla ne ko assalaamu aleyk allahu akbar yàlla na jàmm nekk ci yow ayyuhan nabiyu yow sama yonent wa rahmatullahi ak sama yërmande wa barakaatuhu wa barakaam ñi fekke woon audience bi daan ne ah boole leen ñu ci waay assalaamu aleyna jàmm yàlla na nekk ci ñun ndax ñun rek la ñu ne déedéet waala ibadillahi saalihin ak jaami yàlla yu baax yi yonent bi jël loolu boole ko ci julli ah, fii gaa yi dem moom bañ demee ba yegg ci yàlla luñ ko wax benn xale ndeysaan papaam plombier la woon plombier moom daa xëy rek ne papa gis naa yàlla de papa ñu ne ko ah bon mu ne waaw waaw papa gis naa yàlla papa ñu ne ko loo ko wax mu ne waaw waxuma ko dara nag papa ñu ne ko xaar ma ma ñëw papa ji daal di ñëw xam ngeen bale bale taxaw bale taxaw xam ngeen ko Hmm, papa ji jël bale taxaw bi xam ngeen dafa am bant wulli ko ko ba bant bi damm mu yuuxu koñ bi yëpp ñëw ñëpp jàpp papa ji yow leen la kii nu mu def da nga koy rey yow kii da nga koy rey yow dóor yi lan la mu ne man may plombier suñu añee duñu reer bu ñu ndékkee duñu mu gis yàlla waxu ko dara munu ko woon wax sama baab dafa am problème na nga ko dimbali tey su ma demoon gis Macky Sall ma ñëwaat mbokk yi lan ngeen xalaat ne laay ndogo ah ngeen defe ne mburu yi laay ndogo mburu yi ak bër yi jadidaa yi duma ko ndogoo wax leen dëgg nag ah lu bon bon kay xanaa boog Yusuf dinaa ndog ndog bu neex ah waaye léegi ku gis yàlla nag allahu akbar allahu akbar il faut ñu bàyyi caaxaan yi nekkee Sénégal caaxaan Sénégal caaxaan kese la ay gis nañu yàlla diw mooy yàlla yàlla yàlla paratata dëgg yooyu ay caaxaan la laa wax fii kenn gisu fi yàlla fa kullu ma xatara bi baalika fa allahu bi xilaafi zalik jógal toog yow booy tëdd nga yëg ci kaw fii kenn gisu fi yàlla coolee bëri rek yàlla nan la mel yow mi gis yàlla kaay nga wax ñu yàlla nu mu mel su ma leen ne woon man gis naa président ñu ne ma waxal président nu mu mel dinaa ko mën a définir wala duma ko mën a définir ah gis naa diw ñu ne la nu mel gis nga ko da nga koy wax nu mel wala waaye léegi nag yow gisoo ki nga gis li nga gis xamoo ko wala kii nga gis musoo koo gis kan moo lay wan ne moom la loolu mooy wax bi déggu leen wax bi de ah tey Messi bu ñëwoon Sénégal mu ne cëll aéroport da ngeen ko xàmmee wala du ngeen ko xàmmee da ngeen ko xàmmee lu tax parce que yéen a ngi koy gis bis bu nekk ci télé bi ah alaysa kazalik ah waaye léegi nag Lat Joor bu ñëwoon Sénégal Lat Joor mu ne tëll aéroport di wàcc ci avion bi di dox yéen ñi kan moo ñeme fii naan kii kii Lat Joor la lu tax surtout mu wàcc na costume kan ci yéen moo naan kii moom la xam nga lu tax ñeme woone moom la tey Messi bu wàccoon sol caay ak garamb bu nekk naar yooyu ne nii teg mbax ne bii ma sol di nga xam ne moom la wala du moom da nga naan moom la dafa sensé rek allahu akbar ah naar yi lay toppandoo parce que yow mës nga koo gis waaye yow nit koo xam ne mos mosoo koo gis nooy wane ne moom la léegi yàlla moom yow fan nga ko gisee ba xam ne kii mooy yàlla il faut ñu indi sunuy xel yow da nga ne gis nga yàlla d'accord nañ léegi yow kan moo leen ne kii mooy yàlla foo ko mës a gisee ba xam ne moom la allahu akbar xoola Moussa bi yàlla di wax ak moom ci Moussa ay kàddu dong la dégg xamul xamul xamul jëmm ji fu mu nekk kàddu gi dong la dégg yàlla naan ko inni ana allah may yàlla waaw léegi yow mi ne gis nga yàlla yàlla nu mel doon ko wax ah loolu mooy wax ji borom xam-xam yi dañu ne fa kullu ma xatara bi baalika fa allahu bi xilaafi zalik lépp sa xel lu mu xalaat ne yàlla nii la mel yàlla mu ngi ci ginnaaw loolu fii nu toog ci jàkk ji kenn ku nekk am nga nuy gisee yàlla ci sa xol ñun ñii ñëpp bokkuñu ko nag est-ce que xam ngeen ne bokkuñu ko man bi may imaginer kii mooy yàlla ak yow bi ngay imaginer du benn ñaar yooyu yëpp benn du ci yàlla yàlla kenn mën koo imaginer waaw ah mënoo koo dessiner très bien gis nga kon nag il faut ñu bàyyi xel caaxaan yi tey nekk ci mbedd yi ñu détourner doomu jàmbur yi ah dugal jullit ñi ci ay caaxaan yoo xam ne kenn xamu ko yow yaay yàlla bul julli looy julli julli dafa am njëriñ ah yàlla buy julli yàlla du woor ba tax tey dëkk bi kenn woorul foo romb cin yaa ngi tegu di togg ndogu yooyu foo ñu génne ko sunu bopp yàlla yàlla yàlla laysa ka mislihi shay yàlla nuróowul ak dara dara du munul mel ni moom yàlla laa tudrikuhul absaar wa huwa tudrikul absaar yàlla bët mënu koo gis lu tax ndax bët dafa am limite li ci ginnaaw jàkka ji ku ko xam fii ma toog nii miir bi ma wéeru est ce xam ngeen lu ne ci ginnaaw lu tax parce que seen bët dafa limité man fii ma toog jàkkaarloo yéen ni li nekk ci ginnaaw miir bi xaw ma ko parce que bët dafa limité ba pare bët foog am lu ko dimbali mu mën a gis ñu bëri boo leen ne bët du gis dañ naan kii moo mën a fenn pourtant bët du gis de bët du gis yéen a ngi may xool yéen a ngi may gis est-ce que ni bët du gis de kon nañu waaw waaw kon kii ni ñu ko gisee ak mbax ne mbubula bi ah ok xam ngeen lu tax ngeen gis ma jant bi moo tax ngeen gis ma soo weddee loolu bàyyil ba deux heures du matin bi nga déggee première note rek nga jóg bul taal lampe bi nag dama nga jël sa xëdd bi dama nga fekk xëdd bi fi nga ko teg nga jël ko te bul làmbatu acca acca soo yeewoo ci kaw lal bi balaa ngay taal lampe bi nooy def da ngay làmbatu ba yegg si ci contact bi doog a taal mu leer nga ne xëdd gaa nga ne ah kon kay gisoo pourtant yaa ngi ak say bët sa soxna sax yenn saa yi nga koy làmbatu ci kaw lal bi tongot da sa jabar yenn saa yi nga koy làmbatu naan ko foo nekk te mu ngi nii sa wet waaye yaa ngi koy làmbatu waaye sa bopp bi foo ko féetal nii doo tourné tourné nii xam nga ne gisoo allahu akbar gisoo kay xam nga ne kon waaw léeg-léeg yenn saa yi nga gis benn sàcc yoot ubbi néeg bi taxaw nga naan kii kala kon kay xam nga ne gisoo boo xamoon kii kala doo laaj gisoo ah allahu akbar kon bët du gis bët dafa am lu koy dimbali ci lumière jàmbur lay xoole pour gis yow yaa ngi ci biir néeg bi mënoo gis kii nekk ci néeg bi néeg bi daa lëndëm nga bëgg a gis yàlla suñu digganteeg yàlla ñaata ñaata kilomètre la fii ak ars ñaata kilomètre la du ngeen ma tont su ngeen bëggee xam fi yàlla nekk ni mu toll da ngeen di yéeg avion soo demee ba ci kaw asamaan nga simmi sa jaaro nga sànni ko nga xool jaaro bi ni mu daanoo nii ci kaw suuf si nii nii mu daanoo nii jaaro bi lan la occupé ci kaw suuf ndax yaa ngi koy gis noonu la arsh ëppee àdduna noonu la kursi yi ëppee arsh te ci kaw kursi yu la yàlla nekk kon yàlla nu mu toll yàlla du sunu morom xanaa déggu leen mu ne ëllëg yowmal qiyaam asamaan ak suuf dama koy lem téye ko sama loxo ndeyjoor bii asamaan ak suuf laay lem teg fii wa samaawaatu matwiyaatun yëpp dama koy ngëpp nii asamaan yi ñaata la yëpp yàlla nee na ma ngëpp ko sama loxo droite allahu akbar kon yàlla nan la toll kon yàlla nan la toll mbokk yi te ñoo jaamu yàlla bàyyi caaxaan yàlla du moroom de yàlla du moroom yàlla boroom la dañ ko war a wekk dañ ko war a bëgg dañ ko war a respect dañ ko war a gëm moom yàlla ñu jox ko gëdd jox ko cëram xanaa gisuloo yàlla bi mu joxonee yonent bi ne ko jubal xocc comme ni ma la ko santee yonent bi daa tiit ba bi jaaw yàlla duut baaraam yonent bi ne ko fastaqim kama umirta wa man taaba maaka wala tatxaw innahu bima taamaluna basir yonent bi xëy bi jaaw sahaaba yi ne ko ah da ngaa bi jaaw mu ne sayyabat ni huudun wa axawaatuha yàlla moo ma ne jubal xocc loolu moo ma tiitloo yonent bi bi mu demee laylatul isra wal miraj dafa gis mikail mu ngi ne këcc reetaanu lëndëm yonent bi ne jibril kii kan la gis nga parce que xamu ko mu ne ko kii mikail la mu ne ko maali laa ara mikail laa yadahak lu tax du reetaan jibril ne ko dafa yaakaar ne bu reetaane yàlla dugal ko safara mikail mikail laa wax de ñun da ngay xaqataay ba julleetu tànk yi ci kaw nga tël kaas bi bërëngu te li ngay reetaan lan la li ngay reetaan lan la ak mbon théâtre buy xas islaam la wala théâtre buy xas alxuraan wala théâtre buy xas yàlla wala théâtre buy wàññi ci diina yàlla ji dara loolu ngay kontaan ba périer waaw allahu akbar yàlla mu ne fal yadhaku qalilan wal yabku te ngeen ree lu te ngeen ree tuuti jooy lu bari yonent bi nee na bu ngeen xamoon li ma xam law taalamuuna ma alimtu su ngeen xamoon li ma xam wala dahiktum qalilan wala bakaytum kasiran di ngeen jooy lu bari reetaan tuuti mu ne kon di ngeen génn koj nit ñi di wax ak moom kon dootu leen jege jigéen ñi dootu leen bànneexu ci jigéen ñi kon di ngeen génn dugg ci mbedd yi di wax ak nit ñi di ngeen xamoon li ma xam ñu ne yeneen loo xam mu ne itlaatu fi naar dem naa ba safara yërndu ko ñu ne ak lan mu ne itlaatu fil janna dem naa ba aljanna yërndu xam naa aljanna ñan ñoo fa ëpp xam naa safara ñan ñoo fa ëpp itlaatu fi naar fa iza bi aksari ahliha annisa yërndu naa jahannama safara ñi fa ëpp mooy jigéen ñi mu ne yërndu naa aljanna la fa ëpp mooy miskin yi gis ngeen kon nag mbokk yi dafa am lu nuy xaar lu rëy a rëy loo xam ne moom la ñu yàlla di nettali mooy nit dafa war a wax ci yàlla dëgg nit warul fenn haqiqun alayya wala ala an laa aqula ala allahi illa alxaq man Moussa de li yell ci man war mooy duma wax ci yàlla lu dul dëgg képp kuy wax boroom xam-xam imaam sëriñ kilifa diine ustaas koo mën a doon sooy wax waxal ci yàlla dëgg mu ne qad jiitukum indil naa leen bi bayyinatin min rabbikum indil naa leen lay wu leer nañ wu bàyyi koo ci seen borom bayyina hujja lay qaati'a wu ne weng leer wa burhan saati ala annani rasulullahi ilaykum Moussa li mu indi doy na pour wane ne yàllaa ko yónni wala doyul ñaata mbir la Moussa indi ci Firawna ñaata juróom-ñeenti mbir yuy wane ne Moussa mi yàllaa ko yónni moo tax mu ne qad ji'tukum indil naa leen bi bayyinatin ay preuve yu leer nañ min rabbikum yu bàyyeekoo ci seen borom yuy wane ne man mi yàllaa ma yónni kon li fi des mooy ngeen xam ne yàllaa ma yónni ngeen bàyyi caaxaan yi ngeen nekk ngeen topp ma ay dalil yoo xam ne day wane ne man mii damaa wax dëgg man mii day wane ne li may wax leer na am na fu ma ko teg ndeysaan firaaw ne na ko waaw léegi lan nga bëgg bi la yàlla yónnee léegi loo bëgg mu ne ko farsil ma'i bani israil libérer le peuple bi libérer leen waaw waaw allahu akbar bàyyil nit ñi nga def ay jaam ñu dem jaamu ji yàlla firawna dafa jëloon waa banu israil def leen ay jaam ñu koy liggéeyal guddi ak bëccëg kenn amul tuwaa ci ñoom taxaw yemul ci loolu muy rey xale yu góor yi bàyyi jigéen ñi jël ñenn ñi def leen ay esclave Moussa bi mu ñëwee lim ko njëkk a wax mooy farsil yónnil bàyyil ma'i ya mu ànd ak man bani israil waa bani israil bàyyi leen ma dem yóbbu leen seen dëkku maam ñu génn dëkk bi xam nga ñoom dëkkuñu woon foofu waaw libéré leen ñu dem Firawna xamoon ngeen nu mu tudd Firawna kan moo xam turam dëgg-dëgg nan la ah Firawna turam dëgg-dëgg laa wax lan la al walid ibnu musab ibnu rayyan maliku misr noonu la firawn na tudd al walid ibnu musab ibnu rayyan maliku misra noonu la firawn na tudd bi mu yéegee ci pouvoir bi nag lañ ko tuddee firawna mu ne Moussa ne ko libérer le peuple bi bàyyi leen ñu ànd ak man dem jaamu ji yàlla li azhabu ila ardi saam maahum ma ànd ak ñoom dem dëkk bu tudd saam foofu mooy kër seeni kër yi maam foofu la ñu war a dellu mooy seeni kër yi bàyyi mooy tey fi ñu naan Syrie Égypte la leen doon defee loolu Moussa ñëw ne ko libérer le peuple bi ma yóbbu leen saam mooy Égy- mooy Syrie mooy fi am tey guerre bi ngeen gis ñu yàq ko ba mu yàqu daanaka doo fa gisati lu taxaw lépp a màbb dëkk boobu moom est-ce que ba yowmal xiyaama ci dina jagaat ngeen bokk na tey noon yi noon yi ni ñu naxee jullit yi mooy bu ñuy dóor Afghanistan dañ naan ñi waa Afghanistan la rek yéen seen yoon nekku ci bu ñuy dóor waa Syrie ñu ne yee yéen waa Syrie yéen rek ñeneen ñi seen yoon nekku ci bu ñuy rey waa Yemen ñu ne ñeneen ñi seen yoon nekku ci bu ñuy rey waa Palestine ñu ne ñeneen ñi seen yoon nekku ci tey loolu la loolu ngeen di wax diviser arab yi naan ko farriq tasud waaw da ngay diviser mbooloo mi pour nga mën a dóor fi mu nekk nii ci Iran lañ jëm waaw su waa Iran nooyee bopp ci ñoom lañ jëm waaw xam ngeen ne am na waaju gàtt jooju nekk fële Corée di lan Corée du Nord gars yi wax nañ ba sonn faalewul kenn saa yu xëyee day taal misilam bim léegi fi mu nekk nii Donald Trump mooy négocier quoi mooy dem di ko seeti gis nga moo tax nit ñi fekk amuñu doole dañuy nax suñu bopp xoola waa ji Donald Trump day wax ba pare mu ne ko defuma loolu lii laay def gars yi wax nañ ba sonn bul essayé missile yi suñu nee bul essayé suba mu dóor ñett te booy bu ndaw la te ni ngeen koy gisee nu mu gàtte noonu ni mu amee yaram noonu noonu la moomee yaramam soo gisee ci vidéo yi buy entraîné subhanallah benn loxo bi sax daf koy samp di tourner kooku mu leer na ne mook Donald Trump bu ñu leen ruumaloon Donald Trump dootu ko defati ah lan moo tax xale boobu sadik ba kenn mënalu ko dara ci àdduna bi ñuy wax ak moom mu tëx gumba lu tax parce que dafa am doole julli ñi la looloo leen manqué julli mbooleen ne ne yàllaa ngi fi eh ya rabbi ya rabbi gis nga yal nañu yàlla taxaw ndeysaan julli ñi bu ñuy xeex ak bu ñuy xeex seen biir julli ñi bu ñuy xeex seen biir ay bomb la ñu yor ay arme la ñuy yor fital të të të të të të bu ñuy xeex ak Israël allahumma ahlik Israël di jooy te bu ñuy rey bu ñuy rey waa Syrie ay bomb la ñuy indi bu ñuy rey waa Yaman ay bomb la ñuy indi bu ñuy rey frères musulmans yi Égypte ay bomb la ñuy indi bu ñuy xeex ak Israël ñu teg arme yi naan allahumma wala gisu leen lool loolu moo am di loolu moo am àdduna bi yëpp bu ñuy reyante ñun suñu biir ñun jullit ñi ku ci ku ci gën a soxor ba mu lay yor bëm bay ñaar fukki jullit téeméeri jullit waaye bu des dara desul yu yahudi ñu teg fële arme yi naan yow yàlla yàlla na nga alak yahudi yi yàlla na nga leen def ay jirim yàlla na nga def seeni doom ay miskiin ay non non yàlla du nangu ñaan yooyu yàlla du ko nangu ñaan yooyu ngeen gis ñiy dégg chaque jour du ñaan yàlla du ko nangu su ko doon nangu kay xam ngeen ne kon kenn waxatu ko yonent bi alayhi salaatu salaam moo fi gënoon mën a nangu ñaan wala ah d'accord ngeen wala yonent bi soo waxoon allahumma yàlla may ko wala lu tax bi muy xeex Badr toogul mu ne sahaaba yi dem leen ngeen toog seen kër yi dinaa ñaan yàlla malaaka yi wàcc xeex ñi ah pourtant keroog waroon naa mën a nekk de ndax ñoom ñaata lañu woon ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñi yor juróom-ñaari fas juróom-ñaari mbaam ñi am ay quelques jaas yi ñi am ay quelques xeej ñi am quelques fett ñi yori yat ñi yori paaka ñuy xeex ak ñaata junni nit yoo xam ne genn wàll gépp dañoo war ñëpp armé wu dañoo indi sax seeni jigéen ak seeni sàngara ak seeni tabala pour wane ne dañuy dóor yonent bi ñibbi yonent bi keroog dafa tiit ba bi mu tàllalee yàlla loxo yi di ñaan gis nga de saxaaba yaa ngi ni armé wu ci ginnaawam mu doog a ñaan nag ahan foofu la ñaan di jëriñ da ngay yor li nga yor ba pare doog a ñaan dafa ñaan ba kaala gi daanu Aboubacar jël kaala gi tegaat mu ñaan ba kaala gi naaw Aboubacar jël kaala gi tegaat mu ñaan ba caag Aboubacar téye loxo yi ne ko doy na. yàlla du neenal sa ñaan doy na doy na foofu ñu toog rek lañ jekki rek dégg riir ndekk jibril mooy wàcc ànd ak ay cortège malaaka yu xeex si mikaayil wàcc asrafil wàcc xam nga malaaka xamul xeex yàlla di orienté malaaka yi nu ñuy xeexee yàlla naan malaaka yi bu ngeen jàkkaarloog yéeféer yi fadribu fi riqaabi wadribu dóor leen ci baat yi xam nga jaasi moom boo ko dóoree ci baat baat borom baat boobu jëm moo tax julli ñi dañ daan jékki-jékki jàkkaarloo benn yéeféer rek ñu gis bopp bi naaw xamuñu laa la rek malaaka yi ñooy dóor allahu akbar waaye boobu daf fekk yàlla bala muy wàcc malaaka yi daf fekk yonent bi def li muy def ba pare mooy lan gaa yaa ngi nii taxaw yor seeni arme waaye ñun dañuy teg fale arme yi taxaw ci jàkkee naan allahumma ahlika israil gaa yi naan loolu yàlla du ko nangu da ngay def li nga def ba pare nga doog a ñaan jàkkaarloog ñoom ñuy dóor ngay dóor ñuy jam ngay jam ñuy tiire ngay tiire ñuy sànni ngay sànni ba pare nag nga ñaan yàlla waaye dem tëdd fële naan teg li nga war a teg naan yàlla yaa xam ngeen ne yàlla du ko def dañuy nax suñu bopp rek mbokk yi sunu borom nee na bi Muusa waxee lii Firawna ne ko libérer peuple bi qaala in kunta jita bi ayatin fati biha in kunta min as-sadiqin waaw yow Firawna yow Muusa nga ni yàllaa la yónni mu ne waaw mu ne ko in kunta bu fekkee da ngaa nekk ji te indi nga bi aayatin preuve kéemtaan buy wane ne yàllaa la yónni faati bi ha indi ko in kunta mina saadiqin bu dee wax nga dëgg yàllaa la yónni mu ne waaw mu ne indi li mu li mu la jox fa alqa asaahu mu sànni yat bi fa iza hiya sobaanun mubin mu nekk yeew ngandum yeew yeew boo xam ne bi mu tegee benn ŋaam bi ci suuf mu ŋaang beneen ŋaang bi ŋaang bi dafa bëgg laal asamaan mu song firawna ak gaayam yi ñëpp daw ñu ne ko teye ko mu ne ko zajte ñu ne lee firawna boobu la la am sentiment mu ne kii dëgg la yàllaa ko yónni mais xam nga buur buur bu bon buur bu amee conseil yu bon am na benn waaye bu tudd Haamaan kooku moo alak firawna kooku ko alak bi Moussa bi Firawna dawee ba Moussa ne zacc yat bi téye delloo ko jaan bi mu ne nii loxo bi mu nekk lumière mënatuñoo gis mu daal di koy delloowaat Firawna daa gestu ci xaman ne ah kii yàlla ko yónni de mu ne ko njabarkat la nga naan yàlla ko yónni kii di bu xaaba rek Firawna am confiance nan la ñuy def mu ne ko da ngay yónnee ci biir dëkk bi njabarkat yëpp ñëw ñu concours ak moom munul dara gis nga pourtant bu doon doxaamaan rek firaw na day dem ndeysaan direct gëm yàlla waaye xam nga lu mu wax kii daa ñëw pour nangu siège bi siège bi lay xool siège bi xoolal góor gi bi mu fi toogee ku xool siège bi rek wàccal yow siège bi ngay xool Idriss Seck daa xool siège bi ñu ne ko wàccal Macky xool siège bi ñu ne ko wàccal ah waaw siège bi ku ko bëgg a xool rek gisoo temps yi siège bi ñi koy xool ñii exilé nañ leen ñii ñi ngi ci kaso yi ñii dàq nañ leen fa ñuy liggéey ñii ñu ngi xool luñ leen taxal pour ne siège bi kay siège bi daa garaaw de waaye léegi ku xool siège président ñu def la noonu léegi nag ku xool siège bi yàlla nekk nga ne yaay yàlla siège bi yàlla toog nga ne yow yaa fay toog kon foo jëm bu fekkee yow siège président rek sa morom bi nga xool mu ne la ràpp ci kaso bi tëj tey nga dee yàlla na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko mbokk jullit yi fa alqa asaahu mu sànni yat bi fa iza hiya su'baanum mubin mu nekk ngandum jaan wa nazaa yadahu mu daal di dugal loxoom ci poqataan bi fa iza hiya bayda mu leer ba kenn mënatul xool lii moom mooy sunu dars tey du ñu anticiper qissa bi ndax kon dañuy wax yeneen yi te dootul amati sens dañ koy bàyyee nii ba suba ginnaaw suba yeneen jours yi incha allah bismillah bis bu nekk ba keroog firawna ñu xool fan la mujjeeg jabarkat yi ñu xool Moussa fan la mujjeeg firawna yàlla na yàlla def suñu ndigg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu